lillahi rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasulika nabiyina muhammadin wa alaa aalihi wa ashaabihi ajmaiin amma baad mbokki jullit yi noo ngi leen di dénk di dénk sunu bopp ragal sunu borom tabaraka wa taala ci benn xutba bu weesu tàmbali woon nañ buntub ñaan waxoon solo si nga xam ne ñaan am na ko ci dundug jullit wax itam solo si nga xam ne am na ko ci ak toroxloom ci kanam boroomam akuk jaamu boroomam kon tey danañu wax dara ci lenn ci ni ñaan ni ñaan nag buñ ko waxee mooy niñ koy defee anam yi nga xam ne suñ ko ci defee mënees naa am yaakaar ju not ci ne ñaan gi des na ko nangu ba ca jëkk mooy ñaan gi na sell ñaan gi na sell loola mooy na ñaan yàlla rekk su xasee jublu boroomam di ko ñaan na ñaan nga yem ci boroomam tabaraka wa waaye bu mu ca boole keneen boole kooku toroxlu ak xemmem la fa yàlla boole ko ak fedd li ak ragal boroomam boole ko ak dëgëral ñaan ga bañ caa jëkki dégg déng-déngi mu wóor ko ne borom bi tabaraka wa taala mooy maye te lii mu koy ñaan yor na lu ko ëpp fuuf mën na koo jox lépp loo xam ne lu mu soxla la te dox lu tax mu wàññi dara ca nguuram googee moo tax ca xadiisu qudsi ba sunu borom tabaraka wa taala day wax ne yéen nit ñi ak jinne yi bindeef yi su fekkoon ne yéen ñëpp yàlla dajale na leen fi benn béréb ne leen ñaan leen ma li ngeen soxla lépp kenn ku nekk lim la nga soxla lépp nee na borom bi tabaraka wa taala jox leen ko ba mu doy kenn ku ne mu dollil la ca lu toll ne la nga doon laaj nee loole wàññiwul ci nguurug sunu borom tabaraka wa taala dara lu dul mel ne picc mu doon naaw ba mu yàgg mu romb géej sëpp aw sàllam ca ndox ma doxuy ndox yu woyof yooye koy topp noona rekk lay mel kon ñaan dangay wóor ne sa borom tabaraka wa moo moom li ngay ñaan te mën na la koo jox sunu borom nee na wa ida saalaka ibaadi anni su fekkee sama jaam yi laaj nañ ma la yow sama yonent bi fa inni qarib ku leen jege laa ujibu daawata daai danaa nangul kay ñaan ida daani su fekkee ne man la ñaan loolu yi nag lu ma taxaw la su fekkee ne man la ñaan borom bi tabaraka wa taala nee na innama yuminu bi ayatina alladina ida dukiru biha xarru sujjada wa sabbaxu bi xamdi rabbihim wa hum la yastakbiruun nee na ñi gëm gëm kéemaanam yi ak laayaam yi moom sunu borom tabaraka wa taala mooy ñi nga xam ne su fekkee ne jàng nañ ci ñoom alxuraan ñu sujjóot te ñooña duñ rëy rëylu bu sujjóot jotee dañuy sujjóot moo xam ci biir julli la moo xam sujjóotu tilaawa la waaye lañ gën a fonk muy seen xar kanam dañ koy jël teg ko fi suuf ngir seen borom moo tax laa yastakbiruun ñooña duñ rëy rëylu te tatajaafa junubuhum anil madaaji nee na danañ tëdd ba guddi seen lal yu nooy yooyu ñu bàyyi ko fa jóg di julli waaye yad'uuna rabbahum xawfan wa tamaan ñu tàllal seen loxo yi di ñaan seen boroom xawfan ngir ragal mbugalam wàcc ci ñoom wa tamaan ak xemmem xéewal ya nekk fa sunu boroom tabaraka wa taala wa mimma razaqnahum yunfiqoon nee na te li ma leen jox dañ cay joxe ñii ñooy ñi gëm yàlla nee na falaa taalamu nafsun maa uxfiya lahu min qurrati ayun nee na amul benn doom aadama benn bakkan buy noyyi ngelaw di ca dugg di naat bu mën a xam ñooñu liñ leen dencal ci xéewal yuy sedd xol kenn mënta xam loola nu mu toll jazaan bi ma kaanu yaamaloon loolu ñu fayee leen ko jëf ju baax jooju ñu doon jëf muy bàyyi ba nit ñëpp tëdd di nelaw ñu jóg di jaamu seen borom ak di ko ñaan kon ñaan googi dafa war a ànd ak xawfan wa tamaan daa war a ànd ak ragal ak xemmem ñaareel ba ci teggin yi mooy dàkk waxtu yi nga xam ne mooy waxtu yu tedd yi dafa am waxtu yoo xam ne ku ca ñaan ñi nangu sag ñaan bokk na ca bisu arafa muy juróom-ñeenti fan ci weeru tabaski loola benn yoon la cim at bokk na ca weeru ramadaan lépp ba mu jeex loo fa ñaan yàlla tam sell yàlla nangu ko kon wenn weer la ci am at ni bisu arafa nekk benn bis ci at mi ramadaan noonu la nekk weeru nangu ñaan ci at mi ak bisub ajjuma ci ay bis gi semaine bu nekk bisu ajjuma dana ñëw bisu ajjuma nekk bisub nangu ñaan rawatina ci ñaari waxtu waxtu wi imaam toogee ci minbar bi ba keru ñuy sëlmal ci waxtu yi ci la bokk loolu moo tax imaam bu xutba xutba bu jëkk ba toog war naa may nit ñi ab diir ñu ñaan seen borom foofu ndax lu ñu fa ñaan borom bi nangu ko bokk na ca suñ demee ba takkusaan weesu jullit bi wéet ak boroomam tàllal koy loxoom ñaan ko ci bisu àjjuma lu jiitu jant bi so lu mu ko ñaan foofee sooy boobu mu am yaqiin ci ne borom bi tabaraka wa taala dana ko nangu bokk na ci waxtu njël maanaam buñ demee ba ñaari xaaji guddi gi jàll mu des benn xaaj bokk na ci waxtu wi ñuy nodd suñ noddee ba daaneel loo fa ñaan sunu borom tabaraka jàppal na dana ko nangu diggante fa ñuy nodde ba fa ñuy taxawale julli gi diggante boobu diggante nangu ñaan la loo fa ñaan sunu borom tabaraka wa taala dana ko nangu loolu lépp mu ngi ci xadis yi ci xadisu anas ibn malik nee na yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na adduaau laa yuraddu bayna al adaani wal ko delloo diggante nodd ak taxawal fi ñuy nodd ñuy taxawal ku say loxo ñaan yàlla du delloo sa loxo yooyu mukk mu nekk loxoy kese ci saxiixu muslim xadiisu abi hurayra yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ajjuma am na wenn waxtu wu gàtt woo xam ne ab jaam bu dib jullit du ko ñaan du ñaan yàlla dara ci aw yiw du ñaan yàlla dara ci aw yiw lu dul yàlla jox ko ko waxtu we nag génnul yaari waxtu yi ma la wax ba imaam toogee ci minbar bi ba keroog ñu sëlmal julli ji ak ginnaaw tàkkusaan ba keroog jant bay so ci xadiisu abi hurayra ba tey nee na borom bi tabaraka wa taala yonent bay wax de yanzilu rabbuna tabaraka wa taala kulla laylatin ila samaai dunia ne sun borom day wàcc ba ci asamaan si gën a jege soosi di wax lii soo xamee ne dem nañ ba guddi gi màggat xaaj bu mujj bi des ci buñ ko defee ñetti xaaj nee na day wax ne kan moo may ñaan ba ma nangu ak ñaanam kan moo may laaj ba ma jox ko kan moo may jéggalu ba ma jéggal ko nee na wa dalika kulla layla loolu moom bis bu set la guddi gu nekk rek jàppal ne sa boroom tabaraka wa taala bu ñaari xaaj yu jëkk yi jàllee ba bu mujj bi des ci xam naa la tàmbali quatre heures et demi ba kër ñuy nodd salaatu diggante boobu yi soo fa tàllalee say loxo di ñaan soo ko jaamoo yàlla muy julli jàng fa alxuraan loo fa def ci xeetu jaamu yàlla sa borom tabaraka wa taala daf koy nangu soo tàllalee say loxo ñaan ko aw yiw sa borom tabaraka wa taala da koy nangu kon nag occasion la boo xam bis bu set la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ida naada almunaadi futixat abwaabu sama kii nodd nee na fu mu nodde ba daaneel rek bunti asamaan yi ubbiku nañ di xaar ku ñaan rek ñu nangu ku ñaan rek ñu nangu moo tax bu nodd ga daanoo ba nga wax la ngay wax ba ñaanal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam al wasilata wal fadila boo noppee nag nga ñaanal sa bopp ñaanal xeet wi su ko defee borom bi tabaraka wa taala daal di nangu waxtu yooyu wala situation yooyu yépp jamono yu ñaan la ñetteel ba mooy xool situation yi nga xam ne mooy yu tedd yi dafa am xaal maanaam ay temps yoo xam ne dañoo gën a tedd bokkul ak liñ doon wax ci gannaaw jamono yu taw bi wàcc waxtu nangu ñaan la ba keroog muy sëbét ki woor ba keroog muy dog même bu nekkul ci ramadan lum ñaan boroomam da koy nangu ki sujjóot ci biiru julli wax zikr yi muy wax ba àggal te si géegul lépp loo xam ne ñaan na ko foofu boroomam tabaraka wa taala da koy nangu ki nekk ci tukki boo xam ne tukki bi yiw la daa jóg di jaamu ji yàlla moo xam day aji wala day umra ji wala daa jóg di bu ji lu mu dundalee ak njabootam tukki lay def boo xam ne tukki bi yiw la wala muy doxi ak bokk wala muy jaale ji tukki la boo xam ne tukki bi yiw la li feeg mi ngi ca tukki boobee lépp lu mu ñaan boroomam da ko koy may moo tax ci saxiix muslim abu hurayra ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ab jaam day fi muy gën a jege boroomam mooy bu sujjóotee jaam bi fi muy gën a jege boroomam mooy bu sujjóotee nee na kon fa akthiru duaa su ngeen sujjóotee na ngeen bari lu ngeen di ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam <coughs> waxaat ne ñetti ñaan a ngi yoo xam ne amul sikki sàkk na des koy nangu yonent bee wax de nee na laa fii fiihinna yetti ñaana ngi yoo xam ne amul sikki sàkka ci ne yàlla da koy nangu yooyu yan la yaa yonent bi yàlla bi mu ne ba ci jëkk mooy daawatul mazlum ñaanu ki nga xam ne dañ koo tooñ nit a ko ëpp doole dal ci kawam tooñ ko mu tàllal ay loxoom boroomam ñaan ka ca nee na daawatul musaafir ñaanu ki nga xam ne daa nekk cib tukki tukki boo xam ne aw yiw ko tax a jóg ñetteel ba daawatul waalidi li waladihi baay bi su fekkee ne dafa ñaanal doomam yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxaat ne ñett ngi ñoo xam ne danañ nangu seenu ñaan ki woor ba ba muy dog imaam ji nga xam ne dafa maandu imaam nag buñ ko waxee jéggi na imaam ji jiite julli waaye dem na ba ci imaam ji jiite am réew ndax suñ nee maandu rek xamal ne àtte dikk na kon imaam ji nga xam ne dafa maandu ak ki nga xam ne dañ koo tooñ nee na ñaan googi ñett ñooñu suñ ñaanee yarfauha allahu fawqa alamaam nee na borom bi tabaraka wa taala daf koy yëkkati ca ko asamaan sa wa yuftaxu laha abwaabu sama ñu ubbil ko bunti asamaan yépp borom bi tabaraka wa taala wax ne wa izzati waat naa ci sama tiraanga ak sama kattan la ansurannaka danaa la dimbali wala ba'da xiin donte sax damay xaar ba ci kanam wala mu doon léegi kon daal ki nga xam ne yooyu daje nañ ci moom wala mu doon ci kenn muy ki woor wala imaam ji nga xam ne njiit li nga xam ne daa maandu wala ki nga xam ne dañ koo tooñ dal ci kawam ñooñu fuñ tàllale seeni loxo ñaan sooy boo ñu am yaqiin ci ne borom bi dana leen jàppale moo xam léegi la moo xam ca kanam ñeenteel ba ci teggin yooyu booy ñaan nga jublu xibla yëkkati say loxo te suufeel nag sa kàddu ndax danga nekk ci kanam ku mag a mag a mag muy sa boroom tabaraka wa ndax kat kii ñaan dafa war a ànd ak toroxlu lenn ci saxaaba yi nee nañ li borom bi tabaraka wa taala wax ne wala tajhar bi salaatika wala tuxaafit biha wabtaxi bayna dalika sabila borom bi tabaraka wa taala def ne bul biral sa ñaan ca kaw waaye bul ko suufeel ba mu ëpp wabtaxi bayna dalika sabila nee na defal lu digg doomu loo xam ne yëkkatiwul ba ëpp meloo ne koy yooxu waaye nekkoo di déey itam dangay ngay ñaan ñaan goo xam ne yow mi koy ñaan yaa ngi koy dégg rabbana atina fi dunia xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina azaba annaar yaa ngi koy dégg waaye yëkkati woo ko ba ca kaw ba ñëpp di ko ba muy lëjal sax ñeneen ñi nga xam ne amaana ñu ngay jàng alquran wala ñu nga nekk ci seenub liggéey wala ñu ngay nelaw di ñaan wala ngay dikkër ubbi ay microphone ci kaw wala rajo haut ci jàkka loolee ña koy def lu baax lañ ci jublu du noona ndax ñu ngay wut lu baax amaana ñu ngay loraale yeneen yeneeni doomi aadama yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu wala abdullah ibnu abbas nee na kuy ñaan itam waat yi ngay jëfandikoo na nekk rek ay kàddu yoo xam ne yu simple la te leer bul ko jéem a tëgg ay tëggiin yu rafet ba ëpp ba tax ñaan nga nag di génn ak ñaan li ñu tudde sajow ci littérature aw waxiin la ci arab yi yoo xam ne ña koy wax ku ko dégg na nga naan kii ko dégg arab waay li muy làkk nee na loolu bu mu la ca fekk ndax loola lañuy tudd tudde takalluf mooy di def loo xam ne lu ëpp la ngir fésal sa sa man-man ci kanam nit ñi seetal rek baat yoo xam ne yu sell la yoo xam ne moom lañu war a waxeek sa boroom nga waxeek moom noona ndax kat Eh, Abdullah ibn Abbas nee na noonu yi laa daan gis yonent beek saxaabaam suñuy ñaan noonu rek la ñuy ñaane allahuma aqsim lana min xashyatika ma taxulu bihi baynana wa bayna maasik wa min taacatika ma tuballiguna bihi jannatak wa min alyaqini ma tuhawinu bihi calayna masaa'iba addunya allahuma matticna bi asmaacina wa absaarina wa quwatina ma axyaytana